nit ñaa ngi ciy xaar am na ñoo xam ne ñu ngi naan Papa Sow ndax écrit bi mu jógee ñëwaat fi est-ce que loolu du nekk pression si kawam ak yu mel noonu. loolu dañ koy wax euh, gonek ay kii mais gonek parcelle jarul wax ay pression waaw. objectif bu écrit bi lan la. xanaa déw déwén ngemb door. ngemb door déwén. est-ce que am nga yeneen yoo xam ne ni yu bokkul ak Papa yu fa nekk la. on aura tout tout avec un grand T. maintenant la fekk ñu taxaw Cheikh Ndiaye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 la maximum ci côté bëre ci côté xeex wala ci côté mystique. yëpp mystique ak bëre ak xeex ak lépp kay. kon su ma la déggee sa mbër moo dax a bëri. waaw sama mbër moom wax dëgg yàlla ci ñi dàq a bëri la bokk. moom mook Siteu laa wax. mook Siteu moom moo dàq a bëri waaw. kon amuloo looy mooy ci Siteu pour sa mbër. no aw ma ci fi mu nekk nii lu may moytu. waaw fi mu ne nii aw ma ci lu may moytu waaw. Sowru Fall yow en tant que manager defe naa ne nga kii yaay conseil waaw Cheikh de sama mag la sama xarit la waaw euh, sama mag la sama xarit la ndax lii depuis commencé ba léegi lu mu ci la wax yàlla mi ma laaj xalaat te xëy na moom a mag xëy na yaakaar ne am lu ma ko mën a dolli pour xalaat euh, yow su amee lu ma laaj ci côté fan yi coow li ñu doon dégg ci maanaam euh, li ñuy indi comme comme caution ki noonu yow en tant que manager membre boo xam ne nii mën nañ membre CNC nga ndax nga tey a leeral sénégalais yi ci loolu ci occasion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 war a réglage ñëwaat tegaat caution 1 million looloo métti na loolu même tëgguñu la mais nag man à chaque fois damay wax ne ñu ne promoteur ñoo bokk ñoo bokk bi li ñuy daj ñoom xam nañu kon ñun il ñu leen di ñaanal affaire gën a woyof seen côté parce que lamb ji nag métti de métti trop surtout ci ñoom métti ñëpp mais métti na ñoom ñëpp muy CNG mbër yeeg ménage yeeg a leen parce que jàmbaar lañu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 waaw ñu joxante ren suba sax la àjjuma. waaw suba la waaw incha allah waaw. Marius Ndiaye waaw. nu di ñëwee. ah ni ñu ñëwee ci face à rek moom bu ñu ñëwee def l'essentiel ñibbi waaw.